te ko ànd ak yéen ajjuma bu nekk ngir di fàttalante yu aju ci suñu mbiri diini yooyu mun la ñàkk mu mel ni ci jataay yi weesu li ëppoon solo ci buntub laab tëjoon nañ ko ndax ñëwoon nañ ci ndox ak ay xaajam yi laab yi ci laabul ñëwoon nañ ci ci jëmmi njàpp ndax benn ak moom benn xaaj la ci làpp ak ay farataam ak sunnaam ak yu ngëneelam ak yu ko yàq niki noni ñewon nañ ci eh, sangu ak mboolem li ci aju way niki noni tim ak mboolem li nga xamina mo aju won ci xeet googu yëpp mel na ni bobu nak nag bu yaatu la way yoy moy yi nga xamene mo ci ëpp solo ci buñ ko ràññee ci mana a jëfandikoo ci suñu xeeti jamm yalla gannaaw bu ñu ko génnee nag bunt bi ñu sës mooy buntu julli ndax ku nekk xam na ne laab ak moom yaatu yaatu yaatu lay daay la rek ci julli waaye julli mooy li nga xamee ne bu ñu doon wax euh, objectif moom mooy objectif bu mag bi ngir ginnaaw boo euh, defee yooyu jiitu woon yëpp ndax mënoo julli te jàppoo bu fekkee jàpp la war mënoo julli te sangoo bu fekkee sangoo la war mënoo julli te tiimoo bu dee tiim la war kon loolu it dafa mat a moom julli moomu nag di lu ama am solo lool ci diine lislaam mën naa am sax bu ñuy wax diine lislaam julli li mooy mooy li ci ëpp solo ndax euh, jëmmi lislaam ci boppam moom li la ciy dugal mooy ñaari baati seede yi maanaam bu doon am néeg la bunt bi nga mën a jaar ba tàbbi ci mooy ñaari baati seede yi nit ki duñu reconnaître ne ab jullit la man koo boole ci julli ñi àtte bi ñuy àtte julli ñi di wàcc ci moom lu dul ne tudd ñaari baati seede yi ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loolu mooy li lay dugal ci diine lislaam gannaaw boo ci duggee nag li ci ëpp solo te gën caa nekk farata te gën caa màgg te gën ci mooy julli julli juróom julli farata moo gën ci mboolem li ñu farataal ci julli nii waaye naafila sax moo gën ci mboolem xeet nawaafil yi naafila gu nit di mën a def rek naafila julli mooy li nga xamee ne moo ci gën te loolu mooy ama salaatu fa hiya akbaru ma ataxta rabbaka biha fal taxlama wa man aqaamaha fa diinuhu sadid wa man ahaanaha fa suu fisqin shadid julli képp koo xamee ne taxawal na ko ci gën jaa rafet aw taxawaliin na xam ne kooku kat mi ngi ci diine ji jub waaye képp koo xam ne doyee dal ko wala nga bàyyi ko kooku boroomu caay-caay la te sax Yonent bi dafa wax ne julli mooy kenn ci diine ku taxawal taxawal nga diine waaye képp koo xam ne sànq nga ko doyee dal ko yaa ngi dox ci luy màbbu diine mel ne bi ñu ko laajoon islaam lan la mu ne islaam daal mbir mbir mbir mi mu woote daal dëgg dëgg dëgg dëgg bopp bi mooy islaam waaye keno bi mooy julli njombaxtan la ji gën a kawe nag mooy jihaad ci yoonu jihaad ci yoonu yàlla mu mel ni da ko misaalaat ci beneen misaal mu gën a leer moom julli wax ne day daa mel ni islaam dañ koo taxa tabax ci ay keno juróomi keno buniyat islaam ala xamsin juróomi keno yi bi njëkk mooy shahadati an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mooy seet ne yàlla kenn la muhammad ndawam la waaye ni bi ñu topp nag mooy iqaami salaat wa itaay zakat wa sawmi ramadana wa hajjil bayti man istata ilayhi sabila nga xam ne am mbaar tey bu ko mbaaroon ba mu jekk masalan baas bii ci bitti rek ñu gis ko bu ci benn keno wala bu ci benn weñ dañoon rek da gis mu daal di daar jéngi jëm ci daanu kenn bi ci ëpp solo na nga xam ne moom mooy bi koy téye nga xam ne bu dañoo rek lépp mën naa màbb moom mooy julli dañuy wax ne ëllëg yoomal xiyam yàmb bu ñu koy xool ay mbiram lu ci bax ak la ci safano gi mel non lañ ci ñëk a mo moom julli awwalu ma yuxaasabu lmaru bihi yowma alqiyamati salaatuhun tabi nga xamne bu baxé rek julli gi su baxé ñu ko jullem na julli gi kat baxna ci naka la julli baxé moy bang koy def defal ko ngir dimi borom bi tabaaraku taala bang koy def defoon ko te ànd ak ragal yalla bang koy def ànd ko defoon ko toroxlu ak ko damm bang koy def dan ko selal dan ko joxe ci waxtu yo nga xamee ne lañ ko ca jullee ci lu ay ngànt ci lu ngant su boobaa bu ko xoolee ba nga xamee ne julli gi baxna na suñu borom nangu nako ko la ci ginnaaw lépp na naa yéwénaat waye bu amé lenn lu meddi ci julli gi rek wala lenn lu ñu sik rek naka la ci top yëpp dellu nga ci am yaakaar dellu nga ci am yaakaar lolu dara yomb misal ci ki nga xamee ne misaal nga gone def examen dañ ko tégal ay matière yu bëri ñu ko matière sangam kat bo ci amé fanweeri point mom mo ci ëpp solo ñu ci laaj fanéer wala ñu ci laaj ñent yi ci dess nak ay juroom lañ ci laaj ak wala ñent wala juroom wala fukk wala gën jaabari nga xamné su fekkee ñak na benn benn yoy nonu waye amna na fukk yooyu ñu ko doon laaj rek man nako dimbalé ba jall waye bu xasse ñak ñeent fukk yoy nonu man na am benn benn yooyu mu am muy amaat ci juroom ye fukk fukkan yoy nonu man nako baña bañ ñu bari ba tax du mara jall kon julli non la non la mel suñ ko doon misal ci misal mo xamé ni mu mu jégué mu jégué lay doon kon kanoy kanoy diine juróom la mooy ñaari baati seede yi julli moo ci gën a màgg moo ci ëpp solo Sëriñ Tuubaa jox na ko yitte ju rëy rëy na ko yitte joo xamee ne ju kawee kawee lay doon waxit ni nga xamee ne noonu la ko noonu la ko noonu la ko war góor góor yi góor ñi góor ñi góor ñu wala góor yàlla yi xam ne ay nit yàlla lañ liñ daan ëpp ci li ñuy def seeni yàlla mooy bëri ay sujjóot bëri ay wax ci euh, Euh, jawharu nafiis ne sujjóot gu bëri day wala julli gu bëri mënees na ko dégg noonu day waral sippiku ay bàkkaar fakasatu sujjóoti tuksirun xitaat sunu binaa fi xabari lasi ahad isil musalli xaysuma xaysuma la li rukoo aw li sujjóoti saa quduin wa xushoo tanaasaran min bayni aatiqin lahu wa katafin zunubuhu fawran lahu nee na ki nga xamee ne day julli julli gu bëri day bëri day bëri day tax ay bakaram di sipiku di sotegu ndax bu fekkon nga def sa loxo bi suuf bo defé ni day dal di touru kon nit ki day jappé ko boppam ne ko xam da yenn ay bàkkaar la lum sa su jéngee jim ci ruko mi ngi melni mi ngi tour ay bakaram su jim ci jenn mi ngi euh euh mi ngi tour ay bakaram day dem ba ñaara da koy da koy wicc ndax eh, julli inna salaata tanha anil fahsai wal munkar kep ko xam da julli diko defé janam ko wara defé ànd kooku ragal yàlla ak ak toroxlu da koy sippil ay bàkkaaram di ko dindil ay ñaaw téefam incha allahu taala loolu ab tàmbali la boo xam ne dañ koy dooral rek ci julli am gu am solo incha allah bu ñëwee ci yeneen jataay gën ci yeggale danañ ñëw ci ay farataam ak ay sartam ak ay sunnaam ak yu koy yàq ak yu ci aju yëpp incha allahu taala haza wa sallallahu ala nabina muhammadin wa sallam